mbokk yi dal leen ak jàmm ci biir limametti point com comme à chaque fois ñu leen di toppal actualité série infidèle jamono ji coow topp ko bu baax a baax li ko waral nag moom mooy benn scène boo xam ne joué nañ ko fa jamono yi ñu génn seen boobu nag ñu bari ci sénégalais yi daf leen daal di choqué ki ko joué nag nekkoon actrice bi nga xam ni moom mooy Léna Gueye naam du la première fois nag ñuy wax ci li nga xam ni moom mooy série infidèle ci yi nga xam ni dañ koy génne ñu bari ci sénégalais yi jàpp ni dëppowul ak li nga xam ni moom mooy suñu valeur ginnaaw si loolu nag ñi nga xam ni ñoom ñooy waa ONG Jamra Euh, déposé woon plainte euh, ci li nga xam ni moom mooy euh, série boobule ginnaaw loolu nag waa CNRA daal di interdire ñu daal di tekk li nga xam ni moom mooy série infidèle ci télé yu Sénégal naam li nga xam ni moom mooy série bi sénégalais yi daal di nañ koy bëgg torop fi mu nekk nii daal di nañu tere ñu daal di koy tekk ci bépp chaîne télévision bu Sénégal loolu nag ginnaaw plainte boo xam ni waa ONG Jamra ñoom ñoo ko daal di lii di série infidèle tamit problème yi eh, jeexagul eh, pour ñoom ndax am na yeneen plainte yoo xam ni eh, ñi ngi leen di xaaral ndax ñu bari ci ñi nga xam ni ñoom ñooy sénégalais yi li nga xam ne moom mooy série bi daf leen di choqué bu baax a baax loolu lañ leen indiloon tey doon wax ci suite dossier bi nga xam ni moom mooy dossier série bi nga xam ne moom mooy série infidèle ñu mujjee koo tere ñu teg ko ci li nga xam ni moom mooy chaîne Sénégal yi continuer leen di topp seen site d'information limametti point com ba ngir dara bañ leen a raw di leen jox dig daje beneen reunión aquí en NGPAR.